day waxtaan ak nit yi perduwul dara voilà. Eh, eh, est-ce que taxawaay bi ngeen am na bi war fi mu hôpital bi ah foog naa hôpital bi hôpital bi moo ngi def liggéeyam def na liggéeyam. hôpital bi def na liggéeyam parce que gis nañu directrice même ci personne euh, ci en personne moo jóg di toppatoo affaire bi. est-ce que souhaité ngeen le plus rapidement ñu évacuer ko voie aérienne yóbbu ko Dakar moom chauffeur am. non ça non non dégguñu ko mais. dégg naa ci benn membre équipe euh, euh, hôpital bi médical bi ñu ne su su buggee moom moom moo koy laaj su buggee nañ ko bàyyi mu def waaw mais duñ ko forcer. mais daal état santé chauffeur moo gën a jaaxal. waaw moo gën a jaaxal voilà.